taxawaayu ministre bi tey jii weesu lu dul rek euh, fegu moo gën faju wax nit ñi li xew ci àddina yee leen pour que ñoom tamit ñu jël disposition yoo xamee ne ànd seeg état bi pour que mu bañ a am ngaañ ndax comme ni mu ko waxee Covid mos ta jógee ci biir réew mi mais comme daje gu rëy la ñu jóge boo xamee ne ay millions ngi doomu aadama fa dajee foog ñu waaj ko préparer ko loolu moo indi dispositif bi yëpp ñuy ñaan ojaat yi bu ñu ñibbee seen kër ñu bañ a fàtte ni bërëbu jàngoro lañu jógee te waaj lépp loo xamee ni dina leen musal ba ñu bañ koo yaatal su fekkente ni yëg nañu lenn xeetu tàngoor wala ay saxat ak yu demee noonu ci seen bopp boo ko defee ñu jege structure de santé yi mais lii moom ñun ñi nekk ci aéroport bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ministère de la santé avant que mbir yi di tàmbali ñu ngi woon ak ñun bi mu nekkee ci biir ñu nekk ak ñun ci fin bi tey ji ministre bi ci boppam moo ñëw pour taxaw xool matuwaay yi fu ñu taxaw dispositif bi et je pense que ni jàpp na ni ay équipe am nekk nañ ci ànd ak ñi nekk acteur ci biir plateforme bi pour ñu taxaw ujaaj yi naka mu gën a rafetee